fiñ koy tambalé dañuy dem feulé ci li nga xamanteni moy alliance pour la république du Sénégal muy APR ginnaw tay nak bi nga xamanteni ni nañu li nga xamanteni moy réunion d'urgence jëmale ko ci ñi nga xamanteni ñoo bokk ci CCR di.

parti muy li nga xamanteni moy réunion d'urgence bi nga xamanteni ñi di cadre APR yi dal di nañ koy woté d'urgence kiko jité di Abdoulaye Diouf Sar di coordinateur bi muy Khamis su juroom benni waxtu ci ngoon jotee fofu ci siège APR pour ñu waxtaane lepp lo xamanteni soxal na li nga xamanteni manam moy situation politique du Sénégal ak li nga xamanteni moy situation actuelle bi nga xamanteni li di APR mi ngi koy dund Chicken.